Sandaga sama ADN la nekk. wax naa ko hmm. président ne naa ko ñun Sandaga rek la ah, ñu. jot ngeen gise gisee nañu. fan mais métti na. cinq ans fan la gisee bi. pale cinq ans gise boobu sax moo indi jafe-jafe yëpp cinq ans ñuy topp président audience soo audience ku ne ñu jaar ci yow kenn faalewuñu ba yàlla dimbali ñu jàkkaarloo moom bi ñu jàkkaarloo moom wax nañ ko sunu problème mooy injustice bi ñu subir maanaam nit ki doo bàyyi ba mu tabaski ji. nga ñëw tëj marché muy 18 octobre 2013. Mm-hmm. nga tëj marché am préfet de l'époque ñëw dëkk ay gardien wan ñu nii ci écran caabi marché baa ngi nii maa ko tëj kenn mënu fi duggati ndax ne dañ ne problème de vétusté la à tout moment mën na écrouler wu. Mm-hmm. loolu lañ ñu teg sunu nopp. mais avec sommation sommation moo ko jiitu. non sommation yi xam nga kañ lañ ko indi. dama ne la ku jul ku tabaski ji ku ne xam na ne presque ñu bari dëkkuñu fi. Mm-hmm. ku tabaski ji dem village ba nga toog ba di heures ñu ne la xam nga ñan ñoo la ko wax. Euh, baara ñu ni nekk foofu ak quelque rares personnes yu nekkoon ca marché ba ku ne xam na ne jour tabaski <laughs> marché. du ñoo ñu leen fa fekk jox leen ay kayit ñu téléphoné gardien bi et cetera man men mi di wax yow ba léegi gisuma kayit ñañ fa fekk lañ ko jox ñu ne leen woo leen seen nit ñi. dañuy tëj marché bi à part de minuit loolu la leen préfet wax ñi ko jot a yëg yëg ko ñi ko jotul yëg yëguñu ko bi ñu ñëwee fekk nañ moom moo tëj filmé boppam wane caabi yi nee na tëj naa marché bi. Ah. mooy ki fi nekkoon sàmm. Eh, eh, Aline Badara Diop Aline Badara Diop waaw noonu la histoire bi demee noonu la commencé ñun on était ébahis ñu daw ñëw. am na ñu ñëw ci guddi gi xool xool nangam nangam après kii su ma gisee sama yaram day daw. <laughs> boo gisee image bi waaw bëgg. dem si yàlla Sandaga ah. <laughs> dafa métti. dafa métti hmm? jaar ci mbedd bi sax ak infrastructure Tombouctou bi. Ah, c'était vraiment jaar ci mbedd bi sax dafa ma métti ci man. parce que fii rek laa xamoon 6 9 lañ ma daan wooye 6 heures du matin 9 heures du soir. 6 9 deux xëy 9 heures du soir laay wàcc. Hmm. bu ñu ma wooyee 6 9. su ma wàccee. j'avais tous les problèmes pour ñibbi. Hmm. Pikine Pikine laa daan ñibbi boobu hmm. jamono. léegi xam nga loolu boo koy def pendant presque trente ans. Hmm. ou bien jaxate lii tamit màggetoon na de lii tamit ah. lii mën naa la wax lu ko màgget la yomb naa xam buñ ci yeggee ma xam nga bâtiment bu amul entretien kan moo ko war a commune. commune nanguwul entretenir ñun dañ daan jël suñu fonds propre bëgg a defar mu ne ñu du ngeen ko defar. parce que affaire bi yàgg na bi ñu ko dalee réclamer ba ñu dalee wax ne aussi un un danger la. Hmm. presque ëpp na quinze ans ñu koy wax di ñab ñabal di ñab ñabal di ñab ñabal di seetaan muy dem di seetaan muy dem te problème mu Sandaga c'est pas la structure problème mu étanchéité rek la. Hmm. kër gu fi daanu problème étanchéité moo la daaneel. Hmm. chaque fois qu'on a voulu faire. def nañ ci ay conseil interministériel lu nekk def nañ ko ci pour affaire Sandaga mais les gens l' état n'a jamais voulu réagir. léegi bi ngeen janoog président bu wax ko soxla yi. président dafa il était attendri et attristé. Hmm. comme s'il n'était pas courant non nee na il n'était pas au marché bi bi muy lakk premier bi bi ñu yegsee ci ministre de l'intérieur def nañu l' état n' est pas responsable xam nga ko ñu wax dugg la sàccee nga ne du man. ñun loolu la ñu Abdoulaye Daouda Diallo njëkk a wax. boobu moo nekkoon intérieur l'État n'est pas responsable. mais mais li ma jaaxal mooy marché bi muy lakk. fekk na tëj nañu marché ba pare. exact xam nga nee naa préfet ba mu wanee caabi yi daf ne man maay sécuriser marché bi. boobu la marché bi nekk ci responsabilité. ci responsabilité bi je laisse ici un cordon de soixante policiers. le lendemain ñu ñëw ba a génne suñu bagage nu ne nu non non non non policiers yi nañu fii booy teg sa dànk muy pëtax ñu ne qu'est-ce qu'on ñu ne non non non léegi daal on va réfléchir après ñu bàyyi quelques personnes yi am di petit matériel ñu génne ko ñoom dem seen yoon ñun qui avons du matériel lourd parce que ñun kii lañ doon def alimentation. Hmm. xam nga c'est beaucoup de matériel. Hmm. waaw hmm. léegi ñun ñu ne ñu da ngeen di xaar après dinañ leen wutal fu ñu leen yóbbu parce que comme seen matériel mën leen ko déplacer c'est comme ça ñu demoon dans son temps ci côté tribunal bu bees bi. Mm-hmm. dem ba luyee ay tente sax ak kii bâche xel comme bâche mm-hmm. ba commencé defar ay tente avocat yi jóg sama goro bi nee na du ñu dëkk ak ay commerçant da va faire nuisance sonore lay doon mm-hmm. avocat yëpp jóg ne du fi amee du fi amee affaire boobu échoué on a traîné pendant quatre à cinq mois di traîner de octobre jusqu'à avril ñi ngi trainer dans la rue amuñu fu ñu dem boobu Khalifa Sall moo nekkoon Khalifa waaw moom moo defoon affaire bi. ban affaire. ah affaire bi kañ catastrophe bi yi nga xam ne moo raw Titanic parce que incendie bi ça a été planifié orchestré de telle sorte que. doo mën a comprendre daal. mais les les rumeurs non ci jamonoy Khalifa Sall. ah la fekkee mais est-ce que moom. nee na moom yàgg nañu wax ne protection civile moo def ay rapport qu'on n'a jamais vu. marché bi dafa màgget kenn mënatu ko tiñ nangam nangam bref ñun du ñu renseigner li ñu war a renseigner peut-être dina am ñuy xam te ñun du ñu yëg noonu rek lay dem mais incendie bi nu mu mënti demee daal xam naa ne c'est sous la responsabilité de l'État parce que une semaine après. yàlla de leen na nattu à 19 heures ñu gis ay foyer de tension yu commencé am xanaa incendie am na fu muy démarrer mais incendie bi ñun li ñu constaté mooy quatre coins yëpp la quatre coins yëpp la doon tàkkee après aussi comble de malheur cette nuit là sapeur pompier yi amuñu ndox sapeur pompier yi amuñu ndox ñu ne amuñu ndox waaw mooy octobre bu métti boobu woon rek ñu ne ndox amul ñu ne dañuy dem géej di wuti fii nangam nangam jusqu'à une heure du matin il a fallu marine française moo ñëw pour fay mm, après nit ñi di ko tàccu xam nga dafa doy waar seen matériel bi bëgg ñun man kay on a perdu tout moom kañ la fa yàqu moom c'est des milliards. non c'est que li xaw a doy waar mooy tëj nañu marché bi mais bàyyil nit ñi ñu jël seen i. bagage ñu jël seen bagage ñu jël seen bagage au moins. loo loo tëj nañu marché bi. sécuriser nañu marché bi marché bi lakk na. waaw moo tax ma ne kan faute bi fan lañ koy. incombé injustice bi njëkk sax mooy nit ñi dem tabaski ji nga teg seen ginnaaw nga yëpp c'est moo tax ma ne la c'est planifié. et tout te jaru ko woon ay nit lañu boo waxee ñun xam nañu boo taxawee encadré ñu ku nekk dina taxaw jël bagage am soo taxawee ak say policier ne eh jël kaay njël seen bagage bu boobaa bu ko deful tamit ñu xam ne ñun ñoo jaful lu ñu war. Mm-hmm. on n'a pas besoin de bras de fer. Mm-hmm. mais du ñu yor suñu ay millions teg ko foofu. nga ñëw brusquement rek ne xaaj génn leen affaire yi bon kooku tooy booy lay indi boo xam ne am na ko xam ne le même jour la décédé dafa daanu crise